jot suñu ay vidéo da di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di nuyu képp ku ñuy dégg rek di ñëw di leeral li nga xam ne si ne jàll na fi démb muy benn fato boo xam ne dugaloon nañ ko dem ci internet bi ak lépp lu wër ci kii bi rek ci média yi ci whatsapp bi ak yëpp mooy photo boo xam ne ñi ko defoon man mi ci laa bokk ñett lañu woon maa ngi tudd Xaban Ndiaye ki ci des sëñ Abdou Hakim ki ci des euh, sëriñ Mountakha Touré la tudd Modou Xaban Ndiaye moo wax ak moo sol lu son li moo taxawoon ci digg bi photo bii nag euh, biñ koy def jubluwaay bi dëgg-dëgg taxaw fatawu la rek. waaye du woon pour euh, supporter wala boog loo xam ne dañ ciy jublu pour lu ànd ak lu lu lu nuroog am fala ndax boo xoolee colekaay rek war na dëggal loolu beneen bi ci toppaat muy photo bi jamono bi ñu koy def euh, ci ay weer ca ginnaaw la photo bi jamono bi koy def ay ay weer ca la mi ngi nii euh, le 3 septembre 2021 di woon bisub ajjuma ci fajar gi moom lañ ko doon def léegi ñu taxawee di ko def nag euh, jubluwaay bi nekkul woon lu ñu lu ñu nekkoon maam loo xamante ne dañ koy dañ koy dañ koy foowee wala boog jublu ci comme loolu ñu ñu ñeenti muy wàllum drapeau wala dara déedéet jubluwuñ ci woon loolu wax dëgg fa yàlla dëgg rek a neex yàlla tey te nit ki moom bu fekkente ne xëy na euh, ak yàq moo moo ko tax a jóg wala boog loo xam ne si ne lu baaxul ci moom la moom bu waxee rek xëy na nit ñi war nañ ko xam ba xam kii li muy wax dëgg la ci moom wala déet. waaw en tout cas loolu mooy mooy kàddu yi nga xam ne si ne moom lañu amoon ci lu ñuy lu ñuy lu ñuy leer ci photo boobu noonu ndax euh, démb ba léegi sama téléphone ni nga ma ci envoyé foto bi di ma wax naan ma ñeen ñi ñii ñii ñan la ñii ñan la ma leen ñii de ñun la ñaan ñu lan ngeen jubloon ci photo bi nangam ak nangam ma leen photo bi de loolu loolu ma ci leeral nii nii rek loolu laa leen ci leeralaat wax leen na photo bi jubluwaay bi nëkkul woon loo xam ne si ne pour indi drapeau la wala loo xam ne si ne waaw diw doon ci supporter wala lu xeetoo ko lu supporter wala lu xeetoo ko football wala dara wax dëgg fa la dañoo taxawoon rek am yëgeeku taxaw taxaw di fatawu daal loolu moo ci moo ci nekkoon waaye du jug supporter wala wala ko pour xajamal dara wala pour bëgg ñaawal dara wala dara déedéet wax dëgg fa la amuñu ko sax ndax ñun Touba lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañ daara ko boo xoolee fi lañ defee lépp ba nii nii génn ñu Touba fi lañ ñu liggéey fi lañ defee lépp Serigne Touba lañ gëm te it ci ba nit ñi wàccee ci xasida yi la ñu nekk liggéey wàcc dem suñu kër répression dem suñu kër bu daara ji xewlee ñu dem toog bu bu bu bu bu ñu bu bu ñu soxlaa ñu ñëw waaw loolu daal lañ lañ lañ lañ nañ ko laaral bu baax a baax bu ko defee mbokk yi mën a xam ne ñun jubluwuñ ci woon pour supporter wala boog pour nekk di feeñal drapeau wala dara déedéet wax dëgg fa yàlla ñu ngi tubaat bu baax a baax di jégalu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jomte nag am na ci ndax wax dëgg fa yàlla li war ñu ko woon def. lii moom du du jubluwaay boo xam ne si bu rafet la dëgg dëgg fa la ñu ko woon def ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax mbokk yëpp di di di tubaat bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international.